may euh, njëkkee fii si ministère la santé di nuyu sénégalaises ak sénégalais yépp parce que bésu tey bi ku nekk fa nga nekk yaa ngi xalaat di xew tey fii si ministère la santé tey nag bés bu mag la bés la boo xamante ne histoire dana ko retenir bés la boo xamante ne kenn mënatu ko fàtte mooy tey la Sénégal commencé ñàkku bi loolu ndëg lu tax mu am solo tey fii si réew mi mooy Afrique juróom fukki dëkk la ak ñeent mais fi ñuy wax ak yéen juróom ñaar ñoo si commencé vaccination parce que dëkk yëpp dañoo dajaloo si benn initiative bu mag tudde ko initiative COVAX mais dañuy boole suñu doole pour mën a am si vaccin vaccin yi mën a démarrer loolu bu ñu ko doon xaar du ñu commencé ko mais si vision ak si bëgg réew mi ak si engagement président Macky ne loolu ñun Sénégal ñu ko xaar nañu jël li ñu am pour jëndal suñu bopp vaccin pour mën a démarrer def suñu ñàkk bés bu initiative COVAX ak leneen ñëw fekk ñun ñun ñu commencé loolu moo waral tey Sénégal. nekk si juróom-ñaari réew yi xamante ne ñoom ñoo commencé si ñeent fukki réew ñeent yooyu ñuy féliciter di encourager di remercier la président Macky Sall mun nañu nag loolu bu ngeen koy def am na ñaar yu mu leen dénk bu njëkk bi mooy équité mooy képp koo xamante ne rek yelloo nga ko nga am ko beneen bi mooy transparence moo ñu def ko si njub ba ñëpp xam ne li ñu def dafa leer équité boobu nag moo ñu war a tey quatorze région Sénégal yëpp région boo dem gouverneur médecin chef de région ak district yi jot nañ ñàkk yi ñu ngi commencé transparence bi nag moo waral ñu teg benn comité boo xamante ne liggéeyam mooy surveiller di suivre opération yi ndax mu ngi jaar yoon loolu la ñu dénk si loolu la ñu nekk mais son excellence le président Macky Sall ne moom kat gëm na ne Gambie ak Guinée-Bissau ak Sénégal ay doomu ndey lañ mënul commencé deux cent mille doses fii ci Sénégal bàyyi ñooñu démarré guñ loolu mooy solidarité mun nañu jël euh, dix pour cent ci lii ñu am pour euh, dëkk bu nekk ñu jox la dix mille doses dix mille doses Gambie dix mille doses Guinée-Bissau muy loo xamante ne lu ñu rafetlu la parce que loolu mooy solidarité africaine loolu mooy union africaine loolu mooy aussi booloo ci dëkk yoo xamante ne lépp moo leen boole may wax ne nag. tey commencé nag ñàkk bi mais bu kenn yaakaar ne dañoo commencé ñàkk rek jël masque yi sànni commencé di def ni ñu daan def loolu il faut que ñu insister si ñàkk yi dana tax chaîne de transmission bi wàññeeku bu baax a baax ñu immuniser population yi mais nag li ëpp solo mooy masque yi ak mesure barrière yi dañ koy continuer si biir xeex bi bon xeex bi ñaar la mesure barrière yi ñàkk yi loolu bu ñu ko defee incha allah Sénégal dana tàggoo ak Covid 19 si nu mu gënee may terminer nag di wax nañu ñu ngi remercier gouverneur yi di remercier médecin chef de région yi médecin chef de district yi personnel de santé et d'action sociale yi équipe yi nekk si ministère bi yëpp di liggéey effectivement si combat wu contre Covid 19. mais di remercier CNG bi parce que liggéey bi mu commencé ba léegi dafa am kuréel boo xamante ne ñoom ñooy orienté réew mi.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 juróom-benn ci Wokam ñeent ci Fass ñett ci Liberté 6 ak Rufisque ñaar ci HLM Grand Yoff Zac Mbao ak Amitié 2 benn ci Médina Colobane Gibraltar Fann Résidence Waguñaay Yaraax Point E Almadies Sacré-Cœur Liberté 1 Cité d'Amel Keur Liberté Liberté 3 Pikine ak Yëmbal ci yeneen région yi am nañ ci ñeent fukk ak ñett te lim bi ni la tëddee juróom-ñaar ci Thiès juróom-benn ci Kaolack juróom ci Kolda ñeent ci Louga ak Sédhiou ñaar ci Foundiougne ci Kédougou Kër Massar Passy ak Touba benn ci Bignona Darou musti Xombol Mbour Ndofane Saint-Louis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 di raxas seeni loxo saa su nekk ak ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité te nga xam ne di teel a dem dispensaire wala hôpital bi gën a jege wala di jokkoo ak seeni docteur saa bu ngeen nemmee ko ko yaram bi dafa xaw sutantu ñi nga xam ne aussi sénégalais yi nga xam ne ak ñi dund ci biir réew ñoo xam ne dañu leen a jagleel ñàkk yi di tàmbali à partir de tey nañu fexe ba jokkoo ak seeni dispensaire hôpital wala seeni docteur ba ñu mun a egg ci vaccin yi ni mu waree ak niñ ko diglee ci ministère la santé et l'action sociale ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. tamit des maladies infectieuses dina fi jaar ñëw ñàkku mais aussi professeur Fatou Samba Ndiaye hématologie clinique dalal jàmm moom it dina fi ñëw ak nag seen xarit yéen journalistes yi Baye Omar Gueye nga xam ne moom mooy tey le président des diabétiques dina fi jaar mais aussi professeur Ndeye Rama Diagne Gueye vice président de l'ordre des médecins du Sénégal dina fi jaar ñëw ñàkku docteur Ardoba nga xam ne mooy président de l'alliance du secteur de la santé dina fi jaar mais aussi Adama Diouf union des associations des élus locaux du Sénégal mi ngi fi moom tam dina ñëw ñàkku maam Birame fay président conseil des aînés dina ñëw ñakku mais xam ngeen ne bay di aañ wax naa leen léegi CNP mi ngi fi moom tam dina ñëw ñàkku ak nag suñu papa suñu xarit El Hadj Mansour mbay président de communicateurs Pa Mansour yegsi na mais nañ ma gérer temps Pa Mansour parce que mënul toog lu yàgg xam nga lii day wane encore une fois Cheikh léegi dama bëgg nga joxe nag filiation yi parce que dañ koy poser ay question dañ koy poser ay question voilà ndeysaan Pa Mansour a ngoog xoolal journaliste yi ndeysaan ni ñuy empressé woo pour jël son image xoolal ni ñuy empressé woo pour jël son image président des communicateurs traditionnels mi ngi noonu ndeysaan avec son âge aussi mais xam nga rek moom comme on dit avec sa parole Sénégal dina déglu Afrique dina déglu ak le monde entier ñëpp dina déglu nga fekke lu bari ci réew mi nga fekke ñoom ñoom ñoom Lamine fekke ñoom Galandou ñii tey ñoo toog fii di ñakku nga xam ne dañuy won réew mi ne leen li am solo mooy la prévention li am solo mooy nga taxaw pour ëllëg sa réew lu fa am ñu xam ne am na noo ko defee damay xool sax ci réseaux sociaux yi dégg ay nit ñu naan ñu ne Pape Mansour Mbaye bu ñàkkoo rek ñu ñàkku kon am am na solo sa ñëw tay fii ànd ak sa doom nag Cheikh suba nag lii am na solo Pape Mansour ndeysaan exemple la ci réew mi góor gu baax góor gu baax président des délégués de quartier mi ngi fii sa Samba ñaa defe na voilà ndeysaan Pape Mansour ndeysaan xoolal rek sama papa ji mi ngi nii toog ñu ngi ñu ngi koy defal dégg nga maam ak kii ñu euh, ngi koy defal dégg nga maam enquêtes yi wax na ba pare madame Mal nee naa la tey toogaat ay kilifa yu mag toogaat kilifa yu mag yaa ngi enquête kilifa yu am solo moo tax lii l'histoire retiendra que yaa doon bind seen tur di bind seen at di bind seen adresse mais aussi Abdoulaye Diouf Sarr jiite ñu ñun ñëpp nañu taxaw leen nañu kenn ku nekk ci yéen nga war a def na ko def kenn ku nekk ci fi nga war a taxaw na nga fa taxaw mais nag aussi le secrétaire général du ministère de la santé le directeur de cabinet ànd ëpp équipe bi ñu ànd ñëpp docteur Mbaye ndeysaan moom it tey toogul taxawul mais mais nday màgget ndeysaan médecin chef région de Dakar ne yooyu fii comme que ci man la comme que fii la ñuy tàmbalee kilifa yi di fi ñëw ñun ñëpp dañuy def dispositif yi moo tax agent yi kenn amul seen fee moo tax ministre saa yu discours il commence par les travailleurs il finit par les travailleurs et c'est cela au fait qui ne am nañu ko am nañu tey wax naa leen ko 79 districts de santé am nañu tey 104 centres de santé 1415 postes de santé tey jii autour autour de 2676 da nga am case de santé loolu dafay wane encore une fois ne docteur Mamadou Ndiaye taxawaay bi mu taxaw directeur de la prévention xam ah tàcculeen Pape Mansour ndeysaan xam nga lii dafa rëy mais nag damay def tàcc film bi parce que Pape Mansour di siyaar doomu sëñ Basiru doomu Xaadimu Rasuul maa ngi koy ziar bu baax di yëkkati fi dimbalee li ma tibbee ci sama xol jëme ko ci ki xam ne mooy le président Macky Sall président de la République du Sénégal Afrique daanaka sëpp yi mu am vaccination bi ñenn ñi di nekk pour jëmm ñun ñu dem jënd pour jàmm Sénégal di ko gërëm bu baax le chef de l'État le président de l'histoire maa ngi lay gërëm ak di la sant ci li xam ne ñu ci loo xam ne su may xam nga suñu Sénégal yi ñu ko gëm ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu xam mbas mi yàlla ko ci yàlla jëlee di wax nag di fàttali xale yi tuuti rek Seydou Abdou Aziz Al Amin jëlee na ci bàyyam suy Babacar Sy Omar Khalifa Cheikh El Hadj Malick vingt deux ba cinquante sept li mu jëlee ci moom dafa amoon feebar bu ñu wax pes pes bu sama feddee sax mën na sang Cheikh Seydi El nekk Ndar quartier bi mu juddoo ca Ndar di génn Ndar bari na dina nekk waaye bu góor nee dana ci ñun Cheikh Seydi El Hadji Malick ci ci seen budget ba woon ay tubaab la ni Cheikh Seydi ci unifor man Malick grâce à sama tànk dem ci fa muy ñàkkoo waa Gendar nag mooy sama mbokk man foofu laa juddoo mhm. bu chef de Hadj Malick ñu ko ba pare mhm. nar yëpp ànd mhm. doo li xew ñu ne Malick Fa waat di yëpp na chef de Hadj Malick yëpp na ñun yëpp mu ànd loo yëpp Papa Mansour lii di Abdoulaye Diouf Sarr li mu def nii woo mag mi woo imam yi woo gendarme waa église bi woo ñëpp ñëw taxaw ministre yi ñëw tar ko syndicaliste yi génn docteur yu mag yëpp génn ñu ñëw àndandoo pour def lii pour wan waar réew mi ñàkk yi tàmbali ci biir réew mi Abdoulaye Diouf Sarr def moo ko gisee. bu ñu ñuy ci la ñëwoon. ku def lu rëy. duñ lay wax lu rëy. Mhm. Abdoulaye Diouf Sarr ñoo mhm. koy gërëm ñoo mhm. koy sant waaye dafa ànd ak ay góor nag muy les professeurs les médecins les infirmiers ak ñëpp ñu bokk ci santé sur le plan de l' administration mu ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr. la ko président saxoon mu appliqué ko à la lettre waaye ku xam Abdoulaye Diouf Sarr lu seen maam Alhaji Abdoul Aziz daa wax rek nii nit ba la ñu koy jox cër laajal kii ndeymal baayam pour obtenir cette immunité collective il faut que les gens se vaccinent même s'ils ne sont pas à risque pour que le vaccin ne passe pas par eux pour atteindre des personnes fragiles de plus cette vaccination de masse va réduire la possibilité de survenue de mutations qui peuvent générer des variants qui peuvent devenir dangereuses. Parce que quand les anticorps sont là, le virus ne peut pas entrer dans la cellule. S'il n'entre pas dans la cellule, il ne peut pas se répliquer. S'il ne se réplique pas, il ne peut pas muter. S'il ne mute pas, il ne peut pas aboutir à d'autres variants. Alors, il y a beaucoup de raisons. Je vous résume un peu euh, quelques raisons qui font qu'il est nécessaire, qu'il était nécessaire que je me vaccine et qu'il est indispensable pour moi euh, d'inciter la population à se faire vacciner. Donc, je demande à la population de se vacciner Parce que le vaccin protège alors que la maladie tue. C'est aussi simple que ça. Ce pays est vraiment impressionnant dans ce cadre, hein, parce qu'en moins de trois mois, déjà, ils avaient vacciné 80% de la population âgée de plus de 60 ans et 45% de la population générale. Et très rapidement, ils ont commencé à voir les résultats. Réduction de 58% des hospitalisations des sujets âgés de plus de 100 ans et de des hospitalisations, toutes tranches d'âge confondues. Et ils ont démontré de manière formelle que ça réduit la transmission. Et hier seulement, j'ai vu un article scientifique qui que, par exemple, avec le vaccin qu'ils ont utilisé, uniquement qu'avec la première dose, on réduisait la transmission de 89%. Alors, il y a eu en passé, donc ce virus qui nous a tous déstabilisés, Mais ce virus qui a aussi mobilisé des hommes et des femmes pour le combattre, je voudrais tout d'abord euh, avoir un sentiment de gratitude pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui, dans mon pays et ailleurs, se sont investis pour combattre cette pandémie. Et une mention spéciale à tout le personnel de santé ainsi qu'à toutes les structures communautaires qui se sont investies dans ce combat. Et le vaccin a été un grand espoir pour combattre ce virus. Ce vaccin aussi a été appelé par tout le monde, ou en tout cas, pour pouvoir donc combattre ce virus. Je rappelle que l'Église du Sénégal s'est investie très tôt pour combattre le virus. Je rappelle que de personnalités de l'Église universelle ainsi que des organisations de cette même Église ont lancé un appel vibrant pour que le vaccin soit accessible à tous les peuples, notamment aux peuples, aux populations les plus fragiles. Alors je voudrais tout simplement dire que je rejoins cet espoir et je prie pour que tout ce que nous attendons de ce vaccin puisse être possible afin que ce virus soit vaincu à jamais. Et je voudrais donc demander tout simplement à tous les Sénégalais de continuer à prier, mais aussi à emprunter les moyens humains à notre disposition, notamment le vaccin, pour pouvoir vaincre cette pandémie.